ci naxar lañuy dëkk waaye de bu ñëw nga ne rek xëy na à partir de bii dinañu jóg pour bu mu amati may adressé samay mbokk yi xam nga Sénégal dañ koo bokk mais ku ne da nga am foo jóge ku ne dangaa am kër ku ne dangaa am gox ah ñu ne rekk xam nañu fépp a metti mais ku nekk ci ñun bu laalee sa gox bu laalee sa kër c'est normal nga jóg wax man de Casamance laa jóge man Casamance laa jóge donc j'ai un devoir par rapport à cette Casamance kenn yónneewu ma nag kenn yónneewu ma mbokk Casamance yan lay adressel booleen leen mënul wax bàyyi leen ñun ñun ñu wax boo leen mënul wax pour x ou y raison bàyyi leen ñu ñun ñu wax bàyyi leen ñun ñu waxal leen ndax mënoo leen wax ndax jaar-jaar bi ngeen jaar ndax mënoo leen wax ndax seeni xarit ndax mënoo leen wax ndax ay nit ngeen fa nekkal bàyyi leen ñu ñun ñu wax wax bi du tey de wax bi du tey ñun demoon na ñu béy fàtte defe ne saafaral nañu ko ñun dañoo demoon ba fàtte defe ne saafaral nañu ko man mii di wax ak yéen musoon naa di bind di leen laaj musoon naa di bind di leen laaj kenn tontuwuma kenn masuma ci tontu ndekete yoo Ziguinchor ba bés bu ñuy wax nii tey amul scanner médical démb de laal na ma dama koy wax parce que laal na ma lool ñu ngi nii di ñàkk benn mbokk bu jóge ci man ndax lan yéen comment ce monde d'aujourd'hui 2019 Ziguinchor wala toog du am scanner médical pour nit bu soxlayee faju d'urgence feebar boo xamante ne il faut ñu faj ko il faut ñu xool ko il faut ñu càmbar ko ñu war koo gàddu Ziguinchor ba kaw Kolda wala Ziguinchor ba Dakar pour mu faju ci jamono bi Macky Sall yéenewuloo sa deux cent millions pour la région de Ziguinchor pour un scanner Macky Sall sax deux cent pour la région de Ziguinchor pour un scanner pour nit ñuy faju Macky yow ban façon nit nga ban façon nit nga Marème fay sal bi ngeen di tudd di wax mbaayam fan la baaxee fan la baaxee ñun ñuy continuer di suul suñuy mbokk ñun ñuy continuer di suul suñuy mbokk ngeen ne bu ñu wax ngeen ne ñu noppi ñuy continuer di suul suñuy mbokk ngeen di xaritoo ak ñooñu ñuy continuer di ñuy suul ngeen ne ñun ñu noppi waaw lan la mbokk lan la lan la ñu ragal a wax adduna jeex na ba pare ñi ñuy suul bu ñu génnaloon ñu nekk ak ñun ngeen ne bu ñu wax parce que bu ñu waxee dañu leen di déranger si seeni àndandoo bu ñuy waxee dañ leen di yàqal yéen ngeen préféré ñuy suul suñuy mbokk ban adduna la ñu ne ñun ban adduna la ñu ne Ziguinchor war a toog boobu ba léegi biñ doon wax yéen a jóg ci plateau télévision yi di ñuy naan dafa am ay experts ñuy ñëw pour defar scanner doo leen sa rus doo leen rus ci Sénégal bi nga xamante ne lu waay neex def benn nit mooy jóg détourner ay milliards kenn du ko ne delloo si xaalis bi ñun ñuy wax ngeen ne ñun ñu noppi. ñuy continuer di suul suñuy mbokk ñu continuer di suul suñuy mbokk loolu ngeen préféré ñun ñu noppi ñu continuer di suul suñuy mbokk di leen yalwaan ñoom ñun bokkuñu ci senegal du ñu ne Sénégal benn bopp la ana benn bopp bi avec l'enclavement l'éloignement de Ziguinchor ñun ñu war a toog ay weer ay weer ay at sans scanner médical loolu ngeen ne yéen ñun ñu noppi parce que bu ñu waxee dañ leen di yàqal ñun ñun ban adduna la ñu ne lan la mbokk boo leen mënul wax ñun ñu wax boo leen mënul wax bàyyi leen ñun ñu wax bàyyi leen ñu waxal leen ndax ñun dunduñu foofu bàyyi leen ñu waxal leen lii dafa ëpp Macky yow nga ne yéenewuloo sax scanner médical à toute une région bi nga xamante ne des millions de personnes ñoo fa dëkk ndax tubaab bi moo leen di continuer di nax man dëkk yu ma juddoo bi ma nekkee xale xaw ma dara ñu naan ma ay six millions d'habitants boobu ba léegi boo leen laajee dañ lay ne six mille six six mille habitants pardon dëkk yu ma dëkk ay dëkk yu mag wër ñu conkesil bi may nekk xale ñu naan la dix mille habitants boobu ba léegi boo leen laajee dañ lay ne dix mille habitants kaño ba bële bi ma nekkee xale ñu may ne ay dix mille habitants boobu boo doon dem dañ lay ne dix mille ndax tubaab yi mooy dox suñu bopp une région aussi grande que la région de Ziguinchor une région aussi éloignée comme la région de Ziguinchor ñun ñu war a toog on vous dit ay bloc opératoire yuy senn buy taw mu senn ngeen ne bu ñu wax bàyyi ñu waxal ngir yàlla bàyyi leen ñu waxal leen lii dafa jéggi dayoo ñuy continuer di suul suñuy mbokk ñuy continuer di suul suñuy mbokk yéenay taxaw ci ay plateau télévision di ne Macky ngeen di jàppale ñuy continuer di suul suñuy mbokk mbokk bàyyi leen ñu waxal leen ndax amoo leen kàddu amoo leen baat fii la ñu jóg ne ne lii ëpp na ngeen taxaw tem ne Macky ngeen àndal ana Macky Sall ana Marème Faye lan la préféré ñëw di leen di jox ay cercueil lan la préféré ñëw di leen di tabax ay mor lan la préféré ñëw di leen di may ay corbillard xalaatul leen jëndal scanner de xalaatul jëndal leen scanner médical moom ay cercueil ay corbillard ak ay morgue moom la leen di may ñun ñu continuer di suul suñuy mbokk mbokk bàyyi leen ñu waxal leen amoo leen baat mbokk damay wax démb lañ ma woo ñu am mbokk bu ma jege feebar feebar boo xamante ne fii nii dëkk yu ñu nekk nii dañu ne dans les quinze minutes qui war nañ la xool bu dul loolu même boo demee ba wér di nga am ay conséquences mu daanu ci loolu gàddu ko yóbbu ko ba Ziguinchor ñu ñu ne scanner amul ñu dugal ko ci ambulance gàddu ko Ziguinchor ba Dakar mun nga nale il a rendu l'âme mu nga nale il a rendu nelaw ma guddi gi yépp may xalaat ñun ci ban dëkk lañu ne ci ban dëkk lañu ne dëkk boo xamante ne waaye booy jóg suba ba ngoon ñu lay wax ay waxu milliard ey way Macky Sall ey waay Macky Sall ey waay Macky nga ne scanner médical yow yéenewuloo ko sax waa Ziguinchor scanner médical yow yéenewuloo ko sax waa Ziguinchor ñu faju po Émile Badiane nga ne la di wadd temps yi yëpp ñu nekk di wérante ak suñuy propre mbokk yow boo bindee ñoom ñi ne foofu ñoom ñii di utiliser pont bi gudd ak bëccëg ñoom ñooy taxaw foofu di wérante ak yow mi nga xamante ne yow jaaruloo foofu ñun amuñu problème pont fii ñun amuñu problème scanner médical fii ñun amuñu problème faju fii munoon nañu noppi waaye yéen mii ne foofu bu ñuy def suñuy poste ñun ndax ñu ñëw defaral ñu yéen ay taxaw di wérante ak ñun ñun bu ñuy wax ndax ñu ñëw defaral leen yéen ay taxaw di wérante ak ñun mbokk boo amul kàddu bàyyi ñu waxal la mbokk boo mënul wax bàyyil ñu waxal la Macky Sall Macky Sall Macky Sall ñun ay doomu aadama lañu te bokk ci senegal boobu bu ñu bokk bi ngeen di ne Sénégal benn bopp la Macky Sall xaalis bi ngay tàmbambaalu di bi ay sénégalais de l'extérieur xaalis bi ngay tàmbambaalu di fay ay journal pour ñu bindal ay publicité makisal Sall yéenewuloo sa sax jël ci tuuti jox suñuy askan pour ñu faju ñun ñu continuer di suñuy mbokk suul suñuy mbokk sama mbokk boobu dem de chance la ndax ñaata malade ñooy am chance boobu pour ñu dugal la ci ambulance di dañuy jéem a rejoindre Dakar ñaata ñoo am chance boobu kon nag ñaata nit ñooy faatu Ziguinchor ndax besoin de scanner te mënuñu cee jot mbokk lii ëpp na mbokk bàyyi leen ñu waxal leen leen ñu waxal leen Macky Sall Macky ubbil sa bët Marème Faye Sall ngeen taxaw démb di naan dañ koo humilier Marème Faye Sall ngeen di taxaw naan wala normalul ngeen di humilier jigéen la du moom mooy présider alors que mu ngi ñuy humilier di ñu suul moom moom mu ngi ñuy humilier di ñuy suul guddi ak bëccëg ah moom rek a nekk nit ñun ñu bokk ci Sénégal bi ñuy suul suñuy mbokk ñoom ñuy jël suñuy xaalis di koy séddale di koy jox ay sénégalais comme ñun di ci foo lii laa ñëwoon pour wax ak ngeen baal ma ngeen baal ma ngeen baal ma jërëjëf